ndogule dafa ñëw ak feem yu bees waay ñamal ñu ci ndogule dafa ñëw ak feem yu bees waay ñamal ñu ci tan bombe vagabond la ey Jean Michel Guetman la rama caam jéegu puso ey maya waxkat la Tony chef de bu dëgër fit waaye xam nga lu ma jaaxal du ndogu nga naan Sénégal Sénégal Sénégal set

Ah, euh, waaw moom la de <laughs> yéen a ngi jàmm la. xam nga ni du jàmm de. ah yow bañ ñee suba la um. Mhm. nga ñëw sama borom kër wooloo ko waa dëkk bi yëpp ñëpp a daje. Ah, nga wax ci kanamu àddina yëpp ne. bés bu ne. di nga naka la. message di nga ko message xaw ma lan. pour mu jox waa gox bi yëpp. boobu ba nëgëni. rien dara. waa koñ bi féexuñu. seexuñu fu ñu romb ñu ngi ci kawam ñu yàq ne. parce que nekkuma fi woon raison pour laquelle mu leen ma gis. donc ah, maa ngi koy jégalu d'abord yaay booy euh, parce que maa waxoon ne dinaa leen jox chaque euh, heure ndogu mais. Euh, situation oblige te ku ne xam na ne ñun li ñuy toog bariwul rawatina nga nekk maire boo xam ne na ngay bëri ay partenaires Canada États-Unis Angleterre fu ne la am ay partenaires donc euh, situation bi moo bette parce que dama jàppoon ne fii laay au Umbeyakor euh, début bi par yàlla dogal ma am contre contretemps demoon États-Unis jóge fa jaar Angleterre après après ci laa dem Afrique du Sud donc yéen a mën a comprendre loolu nag maa ngi leen koy baalu àq bu baax a baax baax. teg nga ñu coono bu rëy a leen. Eh, bu baax waaye lépp dinaa ko fay dinaa fay lépp. léegi chef de quartier bi ñu këram. man kër ga. waaw dama am ni lu ma war a lijjanti mais kon suba dama fiy dugg xool ko parce que euh, euh, euh, c'est normal ma ñëw explique ko mais temps amul mais su ma demee léegi nee naan ko maa ngi koy woo téléphone su ma paree ci li may def rek. dinaa ko woo léegi wala sax balaa ngeen a yegg man dinaa ko woo. Ah. comme ça naa ko expliqué. yéen samay xarit. non je vous en prie mënatuñoo génn mënatuñoo dem. excusez-moi je vous en prie léegi ah. lu nga expliqué bal leen ndogu fii. ndogu fii man maa leen ko may non non ndogul rek. Ah, yow lii nekk fii yëpp. Hmm. lii dañu ko sàmba mayaat lii dañu ko dëgg la man de boo jëlul ma jël. bon dogu leen ci wax leen chef de quartier ne ko maa ngi koy woo merci jërëjëf jërëjëf. Yama Yama. comprendre ton travail à ta hey waa Sénégal ndogu leen dafa ñëw ak feem yu bees semaine ma ne koñ bii nga xam léegi man lañ tàmm di ma kaañoo naan ma ma léegi nit ñi lañ xawal dama xam waaye ay ñaxaar waaw alhamdulilah ram jaab kenn la lay mer kanam gi nii monsieur ¿Ah? mm, le maire lañu dajeel. monsieur le maire man. mais nag. sama monsieur le maire. waaw. waaw mooy dina la woo sax. dàq ngeen ko de. ah. monsieur le nga ne. moom la ñu dajeel léegi ba mu ne dina la woo. monsieur le wax na dina ma woo. léegi la ñu wax. Fapal Thiam xam nga li gën a bon. kon duñ may kokkale. yow it ngay jóge marché ñëw di ma kokkale. Rama Thiam bàyyi li ngay def. Rama Thiam may ma jàmm ngir yàlla. man li ngeen may tooñ boobu ba léegi maa ngi leen di muñal dinaa jël fu nag de. ah boo jéegoo yow fekk ñu fi ndax xañuñu la jàmm. waaw ah, ma monsieur le maire. bi ñuy jógee marché lañ daje moom. Rama Thiam. ba mu jox ma ñu ma ne la a vu monsieur le maire même là. en personne même là en personne. c'est pas il était dit c'est pas copé c'est pas collé même là c'est lui-même en personne qu'on a vu. et puis il s'est habillé correctement sapé comme ça elle a dit que il était c'est pas quoi Allemagne c'est pas quoi quoi li mu Mm. yéen monsieur le maire moo leen ngeen jox ko jàkkaarloo. moom ci eh, boppam on a vu même même il a donné Yama l'argent Yama il est tiré comme ça de la part elle a pris woo. Ah, bañ a pris. elle a pris vingt mille il a donné à Yama. Ah, wa dama koy jël. Mm-hmm. elle a pris ndax dañoo dem marché. Mm. lii dañ ko sàmm mbayaan lii dañ ko leb. c'est là son coco là c'est partout elle aime l'argent façon ah. façon qu'on a gâté non non là elle a pris là l'homme là. Ah, ma yaay nag bu ko jëlee tamit am na si ndogal. <laughs> ah li ma si jaaxal. tey moom monsieur le maire xaalis kenn du ko delloo. man léegi lañ ma woo xam nga xale yi koñ bi dañuy réew. non man c' est moi monsieur le maire. ah ko monsieur le ma coupé ko. Ndiaye bi ah. ñuy wax ak moom la ne. Ah. maa ngi koy oo léegi. monsieur le maire wax ñu ngi jàdd koñ bi. eh mon mari. Eh. ah tu as joué bidé même la. xaar rek moo waral ko appelé vite vite même. yow may ma rek man kay loolu du ma solo. Eh. le maire kay loolu du ma solo. on l'a vu en bris comme ça. ak oto bu rafet kay. je t'ai dit. suis correspondant ba pas juin. eh c'est gâté woo. c'est gâté même. nijaay. Hmm? ah nga portable. muñ la oowee. eh da ngay déglu ba pare. waaye alors rek nga coupé te xamoo ki lay woo. man nan laa la rayee. yow yaa ne laal réew mi man laal ma yii mais mais man il faut que t'as coupé appel là mais faut savoir dire nga boo. je ne savais pas je crois que ce sont les les gosses du c'est pour cela Maya. ma ne xale yi kon bi laa yaakaaroon ñoo may tooñ comme dañ dëkkee si li ma tooñ moo tax ma bañ a décroché ma décroché mu ne monsieur le mu coupé ko. rayete nga ñu. Ah, mais on fait comment comme ça. ngeen toog xool li may xaar il faut insister il faut insister. boîte vocale nooy insister mais ça t'a laissé là-bas. mais boîte vocale c'est fermé portable. c'est fermé. maa lay sama yoon nekkul sama ñeenti junni yi de naa ci defar. suñu ñeenti junni yi. hey waa Sénégal. ndogu leen dafa ñëw ak feem yu bees. waay namal ñu ci. dafa ne lii xorog. jóg ba yoon nga góorgóorlu ndogu bi gën a neex am ay nen ndax ay fromage ay camembert ak yooyu xam nga am ay sandwich ay foie loolu dafa baax. Jean Michel bu la tollee noonu nga wuti xëy. jaam bi tey boo xamoon fi ndogu yu jógee. tey tama ñoom yaay dañ cee day de. fan la woon jógee tama yaay ak ma yaay dañ cee day day day tey tey daay. waaw. bu téeméer moo yéen ii woon jox yéen vingt mille francs. ay vingt mille même ku nekk dix mille. ah ah ne woon naa kooy yéen gii kooy bu téeméer. mais de me donner mes dix mille lay. dama laa jox ma ngi jëloo même si me suis ah dama la seetlu la la sa la. ngir yàlla de mu téeméer. sama yoon nekk mu téeméer. allo monsieur le maire. maa ngi jégalu de. wallaahi maa ngi jégalu ba may woo. wallaahi xaw la. moo tax mu coupé la dama yaakaaroon keneen a ma doon woo mais yàlla xam na ne sama xel ma nekk si yow wallahi man yow laa bëgg yow laa xam yow laa mën man loo ma wax rek dama koy gëm ndax man yàgg nga maa wax lu ma dégg noonu nga ne. il m'a donné l'argent. yow la kan nga ne. waaye ñoo nekk fii. du ma ko takk waa waa kon waa pare nga waa pare nga pare nga waa pare nga dama lay laaj pare nga yaa ngi pàkk ñoo ko la waaye yàlla na bukk yi mar sama yoon si yow. ça veut dire quoi yaa na ko gaynde yi téye mais monsieur maire. waaw non non. monsieur maire du pëy de monsieur maire du ndeyeng de. kam kam waroo. seen yoon nekku si. woo ko woo ko papa woo ko woo ko booy fàq ma. moom fàtte ñu Colobane la nekk. waaw yàlla na ko ba mais daal parc la ma ne diwe yi ba yaa ngaa dagg te eh. nekk eh. ah, ah, ah. a soo téeméeri. Euh. la mu xelal nga dox. war na yaa jox ma téeméer baax man bëgguma si la xool yow kay yow ma ku dul am waaye nag xam nga yow Diouf. yow da ngay am. di ñaata bi lay mooyee ñaata yaay jaay. loolu ma doon naa ma yaa téeméer yaay man mii fa. xanaa bu ma joxee sama doom ba pare. waaye la la la. waaye nangul nangul waaw. mooy tu dadd te yoxo bi ci paata bi. mooy tu dadd te yoxo bi. bëy ya. ah daa jaay yey bëy ya. ah ba day siri si tëjee mbuy yi. ah góogóogóo si jabat dara. mais abi tuuti na de naan tan bon bëccëg. mais tu es en régime non faut prendre ça. kan moo nekk en régime. ah ma yaa ko yësim ba weeyu koo yësim de. mais faut manger ah déet weeyu koo nga yëndoo tiif nga naan ma téye ak a mais abi nit yow yaay foofu yow gën a yow te mën na na yow. mais ma benn non. yow na bañ ba ah, yow. Ah, ah, yow ma dum jëmu wooy ba mën nga naan ko téye ak yësim. yi si daa mën a weesu wooy. dëgg la dëgg yow. tam soo ba ngoon yow taa mer di nga naan. waaw waaw waaw waaw waaw dan maa bañ waay yow. wax nga ko sa yaay dan wax nga ko sa yaay ndax man damaa changé yaay. waaw waaw damay fay. masaya moom. wallaay Diop waaw rek yaay. wallaay Diop. et puis danañ laaj ci PAM ci ba biir maa ngi. nay taf taf yi man maa dem dem ñu wooy ba ngoog xiif bi. daan mi nga xam ne yow maa doon fa fii. xoolal si. ñun tiise kii. ñu naa bañee. Diop. ma doo ko defal ah. café. ma joxe taas bu ndaw bi yow yéen moom yéen koo yar lay ay tan boobu bii defal ko. Diop yaa ngi ñaan nga wax suba nga góorgóorlu mu gën a taxawaay papa doo yaa ma ñetti mois papa doo ñëw. wàllu yaay. maman de. ñooñu quoi donc tiens pour manger. ah. tu manges pas. bëgguma. ah da nga gën. pour goûter un peu. wàllu yaay xam. doo ndaw. ndoguma. monsieur la moo Diop ndox jot na waa Sénégal. ndogu leen dafa ñëw ak feem yu bees. waay ñamal ñu ci. ndogu leen dafa ñëw ak feem Jean Michel Kees man la. Rama Thiam jéegu Bousso.